di wax rek euh, Ousmane que les grands esprits parlent de d'idées et les petits esprits par de personnes li nga xam ni wax na ko ci honorable député dafa waroon fekk mu am euh, foi euh, versatilité bi nekk ci moom mu deñ ba pare mu soo koy wax je m'explique sans foi mooy koo xam ni. da ngay doon républicain la nuit boo xëyee doon patriote versalité yéen ñëpp gis ngeen ni mi ko président de la république recevoir à l'insu de sa coalition bi mu àndaloon mu promettroon ko dafay ñëw benn Bokk Yaakaar ba président de la république wax ko mu dem def leneen j'espère que kooku bu taxaw benn crédibilité ay waxam amu ko il a que qu'il n'est pas crédible, il est sans foi et trop versatile aussi. Euh, bu fekkee ni dafa lekk avance su Amadou Ba wala mu lekk bu Boun Abdallah bëgg lu ko neex il devait éviter l'honorable député le président Abdou Mbow bu fekkee ni mu koy waxee aussi juriste la tey jii bu toogoon wax ci processus bi nga xam ne moom moo am ba yegg fii mu wax ci ni lii waroon naa am waroon naa jaar fi wala jaar fële man defe naa comportement boobu la mais malheureusement il est de la race des hommes politiques qui sont dans les détails et qui ne sont jamais au rendez-vous des grands responsables politiques parce que li nga xam ni xew na ñun ñëpp ñu gisandoo ko li amoon solo ci moom mooy mu wax ñu ndax ci euh, enquête parlementaire bi nga xam ni créé nañ ko ba ci processus bi nga xam ni moo indi ñu décaler élection yi ba fin décembre mu wax ñu ni fii kat euh, am na lu fi rëkk-rëkk walla amul lu fi rëkk-rëkk mais malheureusement comme que yooyu yëpp amu ci mais na xam ni rek ni honorable député ne ni son égal et il ne sera jamais loolu la am lu mu ciy wax. loolu jogante politique lu ne am na ci. moo tax ma ne la les grands esprits parlent d'idées tey jii bu waxoon ci li nga xam mooy le processus bi nga xam ni moom moo indi ñu décaler élection yi kon jàpp naa ni loolu amul benn problème mais so acharnement sur le président Abdou Mbow sa montre véritablement. que moom fi ñu toll nii li xew ci askan wi ñoru ko mais Abdou mbaw moom moo ko ñor mais qu'il sache que tout coup politique aura une réponse politique comme ni ma la ko waxee léegi c'est pas à Abdou mbaw de la répondre parce qu'il n'est pas son négal sur le plan politique li ma sañoon kay bëgg mu def ko mooy mu mel ni Abdou Mbow quand il assume il assume pendant les premières heures du koo xam ni dangay ngay bàyyi ba dernière minute nga xool fi balance bi kiiwee nga dem fa wala dugg ci ay ruq daal par des postes de derrière pour voir des responsables politiques après revenir le jour la nuit après revenir le jour dire que vous êtes patriote ça c'est pas la race des hommes politiques surtout cette jeunesse politique bu la yàlla dimbalee ba nga accéder ci benn station bi il faut que nga cohérent il faut que tu tu sois juste et vrai et malheureusement on ne voit pas une personne juste et vraie parce que <laughs> xam nga boo demee seeti président ànd ak benn nekk ci benn coalition ba falu ci maire nga dem ci benn coalition dem seeti président te coalition ba yëguñu ko loolu fii la leen fekk yéen ñëpp biir Thiès ses relations avec Amadou Ba il n'a rien compris tous les gens se savent ses relations avec Boun Abdallah bu fekkee ñooñu moom moo tax muy attaqué Abdou Mbow c'est peine perdue parce que ñooñu lu tax moom muy attaqué Abdou Mbow ñooñu sañ ñoo attaqué Abdou Mbow directement c' est Abdou Mbow c' est quelqu'un qui dans toute sa vie politique lu ko waay mën a waxal c' est quelqu'un qui très responsable et qui prend lu mu bëggul danaan bëgguma lii lu mu d'accordul ne d'accorduma ci lii ñun loolu lañuy xaar ci moom mu roy ko ci grand frère am Abdou moo gën mu nekk fii bu teyee mu wax lii bu subaa mu wax la moo xam-xam ma biir Thiès mois je ne part pas dans des détails ou dans des considérations personnelles loolu mosuma ci dugg mais nag lu ma la wax takk ko téere fii la la fekk bi mu demee seeti président de la république président de la république moo dajale njabootam wax ko il n'a sur ça Abdou Mbow la nuit comme la jour il toujours blanc ku mu seeti guddi suñu et je vous donne notre preuve pendant les élections locales, comment tu peux dire à Abdou Mbow que bu si vous étiez le candidat de Benno Bokk Yaakaar man dinaa topp sa ginnaaw jàppale moom Ousmane Diagne il a dit clairement mais mënuma ànd ak waa réew mi mais quand il est devenu maire peut-être qu'il a pris du poil à la bête il n'a absolument rien compris il <laughs> se permet d'attaquer ab Mbow koo xam ni yàlla bu dogaloon mu doon candidat benn Bokk Yaakaar nga ànd ak moom mais si de l'autre bord élégance dafay maye ngay wax dëgg ngay wax luy dëgg ngay xool nit di wax li nekk ci moom mais boo gisee ay ñooñoom wax lu baax ci moom ah à d'autres moments on ne sait pas tu es animé de quoi nga wax lu ñaaw ci moom mais ça c'est c'est loolu li ma la ciy tontu defe naa ni histoire dafa dépassé loolu Abdou Mbow moom laa la wax léegi c'est quelqu'un qui prend toujours ses responsabilités face à une situation politique dès le début de la situation c'est pas quelqu'un c'est pas un loser c'est pas quelqu'un qui attend à la dernière minute pour dire ceci wala dem ànd ak kii wala dem ànd ak kii moom dafa nit koo xam day assumer ay responsabilité et dès le début avant que ñu naan Amadou Ba. candidat la moom ci la demoon jàpp ci abla jàpp ni daaw Daouda Diallo moom mooy candidat benn Bokk Yaakaar mu wax ko firndeel ko taxawal ko ba président de la république tàmm ki nga xam ni Amadou Ba le président de la république l'a reçu pendant quatre fois moom ak Ablaye Daouda Diallo ak ñi ànd ak ñoom mu waxtaan ak ñoom jour boobu la teg loolu Abdoulaye Daouda Diallo teg loolu ngeen ñëpp suivre ko une conférence de presse parrainage mu def ci lim ci war a def Abdoulaye Daouda Diallo def ci lim ci war a def keroog bi nga xamee ni yegsee guñu fi ñuy monter commité électoral départemental mu taxaw ca nam ca war taxawee bi nga xamee dañuy monter commité électoral communal mu taxaw ca nam ci wax donc ça c'est un c'est un débat euh, derrière case euh, euh, Amadou Ba demeure et reste jusqu'à présent le candidat de la coalition benn Benno Bokk benn Bokk Yaakaar démb il l'a lors du conférence de presse de la coalition de du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yaakaar li nga xam ni nag moom la ñu wax par rapport ak ce processus électoral ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ba yegg si fii encore une fois c'est pas le président de la République c'est pas les députés de la majorité li nga xam ni moo xew député wàllu ñoom ñoo demandé enquête parlementaire par rapport à cette situation te article 48 bu règlement intérieur u assemblée nationale di ab loi organique nga xam ni benn loi moo ko jiibul mooy les lois constitutionnelles may ko assemblée nationale pour ñu def liggéey bu toll noonu ci biir loolu assemblée nationale réunir en conférence des président en commission daal créer li nga xam ni mooy mooy mooy kii bi yàlla dogal honorable député président Abdou Mbow jiite ko maa ngi dégg sax sawaay naan Euh, euh, est-ce que Abdou Mbow war naa jàkkaarloog benn maire c'est pour rappeler que ni le président Abdou Mbow a trois mandatures trois mandatures à la législature te benn génnu ci bureau bi il a fait le tour des bureaux de l'Assemblée nationale sauf la question il a été vice-président secrétaire élu président de commission aujourd'hui président de groupe parlementaire te moom Maître Diagne moomu li muy fàtte mooy que ni c'est à l'Assemblée nationale qu'on vote le lois yi nga xam ni moom la ay kilifaam mooy les magistrats di liggéey la matière bi ñu leen jox muy code pénale ak code de procédure pénale Assemblée nationale lañ koy voté président abrogé ko ñu indi ko jox ko ñi nga xam ne ñooy magistrats yi ñu liggéeyee ko donc il n'a absolument rien compris Et l'expérience de l'honorable député Abdoumbaou, ses compétences au niveau, national, euh, niveau de l'Assemblée nationale sont reconnues sur le plan international. loolu laay wax ne pourquoi et je sais qu'il n'est pas fou il ce qui se passe dans ce pays pourquoi cet acharnement contre son grand frère comme il a l'habitude de l'appeler dans toutes les situations loolu bi mu jógee foofu ñu ne wàllu dugal ne dañuy euh, euh, élection yi dañ ko repousser pour six mois boo xoolee amendement bi ci dugg Diop Sy qui de la mouvance présidentielle mais qui n'est pas de l'Alliance pour la République encore une fois bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo fal Macky Sall falaan nekk député assemblée nationale dugal ni élection yi buñ ko defee boobu dina tombeek màggal bu ci tegee deux mois dina gàmmu dina nekk ci biir taw baa ngi ci diggante bi ainsi de suite nañ ko pousse ba 15 décembre vote député yi ñëw gis nga li xew assemblée nationale pencum ndeyu réew mi ñu am règlement intérieur boo xam ni mooy cislaayu li nga xam ni mooy xew lépp biir assemblée nationale les députés de l'opposition nanguwuñu pour ñu voter loolu taxaw foofu le président de l'Assemblée nationale a pris ses responsabilités en tant que le responsable de la police de l'Assemblée nationale à les faire sortir pour pouvoir continuer ce qui s'est mooy li nga xam ni moom moo xew donc yàlla dogal na loi bi loi bi jàll donc élection yi décalé nañ ko ba le 15 décembre en en que cette commission d'enquête puisse faire son travail bi nga xam ne dañ koo may un délai de six mois pour mu délai di fàttali nekk ni commission di fàttali nekk daal di fàttali ni cette commission d'enquête parlementaire ne son ni des juges ni des magistrats ils n'ont pas le pouvoir de juger qui que ce soit ñaareel bi la teneur de ces enquêtes là ils n'ont même pas le droit de le divulguer au grand public loolu il faut sénégalais yi xam ko ci yooyu noonu la ko ci mel ni maître euh, Ousmane Diagne encore comment je l'appelle familièrement dugg di lëndëmal di jaxase xelu askan wi parce que bu nee la est-ce que kii am na droit enquête diw wala juge diw da foog ni kooku taxawaayu juge la taxaw wala taxawaayu magistrat ils n'ont qu'à rétablir la vérité ñu bàyyi politique politicienne bi di wax sénégalais yi ak sénégalaises yi dëkk c'est à ça que j'appelle tous les responsables politiques pour que Sénégal am jàmm nekk ci dal ñu dem élection au 15 décembre ki yàlla def président ñu jox ko réew mi xam nga Sénégal mooy li ñuy wax rek am réew la boo xam ne dafa dafa dafa dafa sukkandiku ci ay charte sukkandiku ci ay loi sukkandiku ci ay règlement le président de la république à décalé zéro zéro mënu ko c'est à l'assemblée nationale de décider ça démb président Abdou Mbow en conférence de presse l'a expliqué nee na am na fi en 1962 am na fi en 2007 pour les législatives ñu décalé ko loolu moom moo fi amaat donc dara beesu fi le président de la république boo xoolee ci propose loi bi ñu voté bëkki démb dañ ne moom mooy gouverner ba ba muy joxe lenge yi le 15 décembre dinañ dem élection yàlla bu defee ne amul deuxième tour wala mu am deuxième tour jour bi muy joxe lenge yi la nekkatul président de la république loolu la loi woo ko wax du waxi tafaaku donte bu ma sañoon mu amaat yeneen ñaari mandat loolu waxu loi la loi bu ñu voté assemblée nationale la donc président jusqu'au 15 décembre. Maintenant, ceux qui veulent torpiller l'œuvre du président Macky ou bien ce qu'il a fait pour le Sénégal non cas de santé parce que loolu mënutu la nekk réew mi kenn mënu koo taal kenn du ko taal parce que réewum jàmm la réew bu am ci saay la am ay fondement démocratique am ay fond am ay loi ak ay règlement donc lii moo mooy li nga xam ni bëggoon naa ko wax ci mbir moom merci maa ngi lay jaajëfal di jëfal encore une fois Thiès Info ak euh, Dianken TV ak ñëpp ñi nga xam ni ñoo ñuy suivre à travers ces deux di leen remercier di leen ñaanal yàlla sunu borom aussi mu yow seen liggéey yokku ba ngeen gis ci seen bopp.